te min ay lixee ngir moom bakkaa jooyoon na muhaad ibnu jabal muhaad ibnu jabal li mu wax nii ne juróom-yaar yi ku ko amee mbaa nga amee ci benn boo jëfee yàlla du ko nangu ne al imaamul Xasaali andi na ko ci bidaayatul hidaaya bari na itam yeneen téere yu mu dikk moom sax addis la boo xam ne yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da ko waxoon mahaaz te bam ko ko waxee mahaaz dafa jooy ndax rekk nu mbir mi réer fi moom mabda'uha tàmbalikaayam mooy anna rasula naka yonante bi salla yal na doolu tedd nga musalliman mbir mu muy aji dooli woolu alayhi ci moom rabbun buur ala bopp yëkkati na mbiram rakida waroon na yow man ci ab bis mor difan mbir mu muy aji togg muhaatan mahaad alayhi yàlla na doole nekk ci moom ridwaanul lazi ngërëmul yàlla mi nga xam ne ahaaza musal na ko moom mahaas ci luy xeetu weddeeg texee di wara faxate yëkkati almuxtaaru ka ñu tànn li samaay jëme ci asamaan basaraxoo gisam ba xaamida diil ala i mbir mu mi aji sant boroom xéewal ya waxaalte mu wax ne yaa mahaadu yow mahaad ba adama ftakara ci gannaaw ba mu xalaatee xaala mu wax laxoo ñeel ko ko labbayka wuyu naa la ci gannaaw ak wuyu yaa xayral bashari yow ngën ji mbindeef yi xaala mu wax la foo ñeel ko ko indi naka man mu xaddisun aji nettali laa la ka ñeel la xaddisan ab nettali boo xam ne mooy xaddis bi firi addis rek in xavis taxoo ndeem wattu nga ko nafaxaka mu jariñ la laakin waaye ida doya taxoo ndeem sànk nga ko xataxta nga dog maa la nga xam ne la ka ñeeloon na la minal xujjati ci aw lay xind di sama i fa boroom asamaan su ma xassa tot mu jàngat xàllihi ci moom maa xassa la mu jàngat ila axirihi ba ci mu jëm ga fooxatam ma te mu jàq xalban ci xol wajalan ak jàq tuma bakkaa topp mu jooy radiya yal na gërëm an walis ko allahu yàlla wa kulli man ak képp koo xam ne xadd wallaahu méngoonte woon naag moom fi diine ci diine mahaad dafa nettali ne yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da ko masa togg togg mooy yonante bi war waral ko ci gannaawam ñu bokk war ci jëmbi warukaay boobee loolu mooy togg yonante bi yëkkati ay bëtam xool asamaan sant yàlla boroomam yonante bi xalaatub diir daldi ma ne mahaaz ne ma ne ko wuyu naa la yow ku baax ki mu ne ma daalay bëgg a wax loo xam ne daal soo ko jàppee te jëfe ko da nga ci jëriñu faaw waaye nag boo ko sàgganee bañ koo jëfe bu ëllëgee boo taxawee fi kanam sa boroom doo amu lay te xaw a gudd nag ci addis ba waaye waaye mënees na ko gàttal rek te nga dégg ko bu baax a baax maxaas dane yonente bi daa tàmbalee ci ne ma suñu borom day laata muy sàkk asamaan ak suuf dafa sàkk juróom-yaari malaaka ba mu sàkkee nag juróom-yaari asamaan yi juróom-yaari malaaka yooyee malaaka mu ne mu def la bëkk néeg ci jenn asamaan te xam nga sikk yee nga waxoon léegi tàmbalee jëw banam daanoo juróom-ñaar lañu te gis nga asamaan yi kon juróom-ñaar lañu mu ne ko nag asamaan su ne yàlla teg na fa malaaka moo xam ne am na lu mu koy seetloo malaaka yi nga xam ne ñooy sàmm jëfi jaam bi mën nañoo naw la jaam bu jëf yëkkati ko jëme ko ci asamaan dégg lool defe li ñu yóbbu moom lu rëy rëy la buñ àggee nag ci asamaan si njëkk a jot mi asamaan su adduna si malaaka ma fa yàlla tegoon muy bëkk néeg ba ne leen déedéet du ngeen jàll jëf ji yóbbu leen ko dóor ko ci bopp ki ko doon jëf man kat yàlla dama wax ne ma toogal fii képp kuy jëw rek bul bàyyi jëfam mu lay romb di jàll si ci man seen waay ji ab jëwkat la yóbbu leen jëf ji mu jëfoon dóor ko ci boppam duma ko bàyyi kat mu jàll ndax yàlla ne ma kuy jëw bul bàyyi jëfam mu jàll su fekkee nag jaam bi mucc la ci jëw kon malaaka yoroom jëfam di ko yéege ci asamaan daañu weesu asamaan su njëkk si jàll ca asamaani ñaareel ja noonu lañu koy toppa nag ba juróom-yaari asamaan yi mat nga xam ne jullit bi faaw rek mu war a mucc ci juróom-yaar yi yépp jëfam door a mën a jàll ba fañ koy teg bu dul loolu rek asamaan su mu romb te fekk mu amee woon benn ñaawteef ci ñaawteef yi malaaka ma fa nekk di fa bëkk néeg dana ko wax ne ko yóbbul jëf ji dóor ko ci boppub kooka mbaa kanamub kooka ndax ki jëf-jëf ji day jëw mbaa day ngistal mbaa daa amek naw boppam mbaa dafa ame kañaan mbaa dafa amek rëy mbaa dafa ñàkk yërmande ci doomi aadama yi ba ku tawat mbaa nga am balaa du la yërëm mbaa dafa bëgg daraja yëkkatiku ci kaw nit ñi nekk ci kaw ñu nekk ci suuf te yàlla taxut mucc ci yooyu yëpp dafa jafe moo tax maas dafa daal di jooy ne yonante bi man day xawma nu may def yonante bi ne ko góorgóorlu rek def li nga mën te farlu ci téye saw làmmiñ dénkaat na ko sax ay ndénkaan yi ndénkaan ca nam war a def ba daaneele ko ne ko lii lépp kat day mel ni lu jafe la waaye ku ko yàlla yombal ci moom rek mu yombo fal nan sarif nanu wëlbatiku aydan ba tey ilal aadaa bi jëm ca teggin ya li kay takkoona ngir ñu nekk aaxiral kitaab bi di mujjug téere bi ba tey nee na nan delluwaat waxaat ci mbiri teggin ndax mottalee ko téere bi ndax bunt bi nu nekk muy buntu teggin yi ak ngëneel yi mooy mujj ci téere bi naquulu danañu wax ne min haa bokk na ci ñoom al ihtimaamu yittewooga bi umurin ci ay mbir àllaqa yooyu aj na rabbuna sunu boroom xaleehaa ci ñoom fi duhóori ci jamono ya xaatimatal mujj xusnaa gu rafet xusnaahaa gog làq nanu ko xunaa fii rasaqanaa yal nanu wërsëgale allahu yàlla xadan ci ëllëg iyaahaa moom mugg rafet googee bi man nii ci xéewalam wama ak la nga xam ne xawaa làq na ko minal karami ci tedd nga wal fadli ak ngëneel wal raxmati ak yërmaane wal lutfi ak ñewante al axam mi nga gën a matale bokk na ci xeeti teggin yi nga farlu ci lépp lu ñu ne day tax am mujj gu rafet nga jéem koo def bu dee lu ñuy def jéem koo wax bu dee lu ñuy wax jéem koo melowoo jikkowoo ko bu dee lu ñuy melowoo ko jikkowoo téere bi nag dafa yem foofu yàlla àggale ko moom téere bi mu jële ko mujj gu rafet rafet mu ñaan nag yàlla mi ko may mu àggalee téere bi nii àggale bu rafet rafet mu boole nu ñëpp may nu itam mujj gu rafet rafet bu ëllëgee ci mbaaxam ak ngëneelam ak teraangaam ak yërmandeem ak ñeewanteem gi nga xam ne ñëpp la daj bokk na ci wax ne day taxa am mujj gu rafet nga farlu ci gannaaw bu fajar fenkee bala ngaa julli suba nga wax ñaan gi ñeen fukki yoon ak benn mooy yaa xayu yaa qayuumu yaa badiixa samaawaati wal ard yaa dal jalaali wal ikraam yallaahu yallaahu yallaahu laa ilaha illa ant asaluka an tuxyiya qalbi bi nuuri macrifatika abadan sarmadan yallaahu yallaahu yallah bokk na ci itam bis bu ne nga wax yaa xayu yaa qayoomu laa ilaha illa anta ñeen fukki yoon bokk na ci itam bis bu ne gannaaw boo jullee suba ba noppi nga jàng fatiha teg ca ayatul kursi yi teg ca amana rasulu ba fasaar wayam teg ca shahidallahu annahu la ilaha illa hu ba ci baatub alxakim moom taxu koo gudd teg ca qulillahumma malikal mulk ba ci bi xayri xisaab al imaamu shahraani moom day wax ne loolu da nga koy def gannaaw jullit farata gu ne bokk na ca taqu al musabbahaat al hashr suba ngoon moom bari nañu ko miin mooy wird woowu nga xam ne sëriñ Tuubaa moo waxoon maam Ceerno ne ko ku ko jële ci yow rek koo ko jox rek dal ne am texe goo xam ne ñàkk texe du ca toppati bokk na ca itam saa yoo jullee julli farata ba sëlmal nga wax rabbana laa tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab yetti yoon lañ koy wax gannaaw jullik farata gune ba tey gannaaw jullik farata gune nga wax yaa muqallibal qulubi thabbit qalbi ala diinika wa taaxatika yetti yoon mooy yàlla yow mi wëlbati xol yi yàlla na nga saxal sama xol ci sa diine ji ak ci topp la ba tey gannaaw julli farata gu ne nga wax ñaan gi yetti yoon allahumma id hadaytani lil iman fala tansixhu minni wala tansixni minhu xataa taqbidani wa ana xale yow sama boroom yow mi ma gindi ba ma gëm la yàlla na nga ma tawfiqale bañ a dindee gëm gi ci man bañ maa dindee ca gëm ga mooy rekk boole maag gëm gi nu bañ a tàggoo mukk mukk ba ba may taseeg yow gannaaw julli farata gune it mu wax allahumma inni yastawda'tuka diini wa nafsi wa ahli wa waladi wa maali fi xisaanatin min xasaa'ini bismillahi irrahmani irrahim baabuha laa ilaha illa allah wa miftaaxuha laa xawla wala quwata illa billahi l xaliyil azim moom it yetti yoon la gannaaw julik farata gune bokk na ca itam mbir mu ne mu def ca listixaar bala mu caa bëgg listixaar googu nag ci sunna mooy julli ñaari ràkka ba noppee ñaan ñaanu ko listixaara nga ñëw ca addis ba gannaaw ba nag lu yàlla jëmali sa xol rek nga jàpp ne loolaa gën bokk na itam ci yi taxa am mujj gu rafet di wax subhaanallahil abadiyil abad subhaanallahil waaxidil ahad subhaanallahil fardi samad subhaanallahi raafixi zamaa'i bi xayri xamad subhaana man lam yattaxid saaxibatan wala waladan walam yakun lahu kuf an ahad moom nag waxu fi gannaaw jullit farata gu ne dana rek nga taqoo ko waaye nag xanaa kon mën nga koo saxoo moom it gannaaw jullit farata gu ne bokk na it ci yi taxa am mujj gu rafet gannaaw bu jullee jullit farata ba sëlmal mu ñaan ne yàlla yàlla na ma musal ci sawara yetti yoon la koy wax allahumma ajirni minan naar allahumma ajirni minan naar allahumma ajirni minan naar bokk na ci tax am mujj rafet it boo gisee ku xiif nga fexe ba jox ko mu lekk boo gisee ku mar nga fexe ba jox ko mu naan ba màndi ba tey it ku am aajo nga ànd ak moom dimbali ko ca aajo ndax mu faju moo xam yàlla sottal na ko mu faju wala déet dimbali nit ci aajoom daal dana taxa am mujj gu rafet yàlla dénk la njaboot gu jigéen nit nga sant yàlla te yor leen yor bu rafet dana taxa am mujj gu rafet fexe ba booy faatu itam lu bokk ci lem nekk ci sa biir nga faatuwaale ko moom it dana tax am mujj gu rafet xadin taxat jeex na masaalikul jinaani masaalikul jinaan bi xusni awni rabbina ci rafetuk limalal sunu boroom almannaani ka di ab xéewalekat kon nag nee na mi ngi sant yàlla ci àggale gi mu àggale téere bi lu lépp rek dimbalu yàllaa ko mbaaxam la alhamdu xeeti cant yépp lillahi ajee la ñeel yàlla allazi yàlla mi nga xam ne xadd ak mala matal na kitaabanaa sunu téere bi min ba adima xadd soxala ci gannaaw ba mënu soxlaalee sant na yàlla lool nee na ndax téere bi yitteeloon na ko lool waaye yàlla dimbali na ko ba mu àggale ko nazman mu di aw way xadi taqara woo xam ne xeeb na mum fi baana diru feeñ na ad durra urusu durru wal yaquut ak urusu yaquut wal marjaan ak urusu marjaan téere bi nag bi ko yàlla àggalee nee na da di awewu rafet rafet ba moo gën rafet urusu durru ak urusu yaaxuut ak marjaan xadis tawaa làq na tasfiyatal xuluubi sellal xol ya min kullimaa ci lépp loo xam ne yëfu di dana àggale ilal xuyoo bi jëm ca sikk ya id ngir fii nekk na ci moom maa loo xam ne min xikamit tasawuf ci xikami tasawuf yakaadu dana xaw yuux nii di dawluloo xan jamii suxuf yi walis mboolem téere ci des di fadli dil jalaali ci ngëneelul borom màgg ga wal ikraami ak teral ga buurika yal na barkeeleef fii ci moom jaaliban mbir mu muy aji ñoddi maraami sama càkkutéef téere bi ne ëmb na lépp lu nit di def ba xolam set ci xeet sikk yi nga xam ne moo koy tee mëneeg boroomam téere bi indi na nañuy faje xeeti sikk yooyu ba jaam ba mën a maneeg boroomam li ëpp ci njariñi tasawuf yi moom téere bi indi na ko ba daanaka xawees na cee mën a doylu tàyyee yëri beneen téere loolu lépp nag nee na baaxul yàlla rekk kon yal na ci yàlla dolli barke te dolli ma fajal sama aajo jaalahu yàlla na ko def allahu yàlla li man ñeel ka nga xam ne xadd salaka sóobu na man xajahoo yoonam wa maslakan muy ab sóobukaay ilal jinaani jëm ci àjjana ya ne mi ngi ñaan ni mu tudde téere bi masaalikul jinaan yoon yu ñu xàll ñu jëm àjjana noonu mu tudd mi ngi ñaan yàlla def ko mu mel noonu nga xam ne xam ne mboolem ñi wut yàlla téere bi moo leen di yéege ñu àgg ci yàlla àgg ci àjjana ba jaxalate mu def ak sawaaba yool ba lii ñeel ma ar ridwaana mu di ngërëm tafaddulan ngir ak gën gu mu nuy gëne noon jaam ñi wal xafwa akuk baale wal xufraana akuk njéggal wal bishra ak mbég wal anwaara ak ay leer fil xabri ci bàmmeel ba xadan ci ëllëg wal am na ak wóolu yowmal xaw fi ci bisub ragal ba min kuli radon ci gépp alkane mi ngi ñaan yàlla nangu téere bi ba noppi nag faye ko ci lépp lu di ak njëggal ak mbégte ak ay leer muy ca bàmmeel ak dundug barsax ga faye ko ci itam mucc ci lépp lu nuru xeetu alkande ci bisub tiitaange boobee muy bis penc na ma faye sax lu féete kaw loolu lépp te moo di may ma ngërëmam la gën a màgg moom yàlla ba muy wax li nag booba ci njëlbeenu jógam rekk la bindaat na ci yeneeni béréb yu bare bari di sant yàlla ci ni mu ko defalee yi mu tudd nii ak sax yoo xam ne da cay sant yàlla rekk waaye du ko wax du ko bind wa asbata te mu saxal assalaata dolli teral wasalaama ak dolli wóolu xalal lësi ca ka nga xam ne jalaa wuññi na ak zalaama lëndëm ga xànnaa walis nun muhammada te moo di muhammad almajhooli ka di kuñ def afdala nabiyin muy ngën ji ab yonante farama te mu yewenal xaala aqrabi mbirum ab jegeñaale wa ajnabi akub jaambur wa alihi ak ñoñam wa saxbi ak ay saxaabaam alxobbaadi ña di way jaamu wa kulli muqtafin ak jëpp aji xeñtu minal xibaadi ci jaami yàlla yi maana faxa li feek jëriñ na allahu yàlla bi alimin ci xam-xam naadimahu aji wayam bi fadlihi ci ngëneelam fanaa la te mu am xusnal xaatimati rafetub mucc dafa daaneele ñaan yàlla mu dolli teraanga ak jàmm sang bi nga xam ne moo gën ci ñi yàlla mësa yónni te mooy muhammad bi mu ñëwee itam ñëpp amee ci moom pajug aajo mbokk ak jàmbur ñëpp rek seeni mbir defaroo na ci baaxu yonante bi kon moom ci boppam yàlla na ko yàlla dolli teraanga ak jàmm dolli ko mbokkam yaag saxaabaam yi nga xam ne dañoo nekkoon dëgg-dëgg yi jaami yàlla ak sax képp kuy jéem a xeeñ di jéem a roy ci ñoom aw fañ awoon rek yàlla na la yàlla boole ci teraanga jeeg jàmm ji li fekk nga xam ne yàllaa ngi baaxe ñenn ci ay jaamam ñu am xam-xam bu rafet di ca taalif di ca yeete di ca womate jëm ci yàlla te yàlla rek tax bu ko defee ñuy jariñu ñoom ñooñee di jariñe di am mujj gu rafet jaami yàlla yët di gindikoo ci ñoom bay am mujj gu rafet li fekk yàllaa ngi def loolu rek te loolu mooy am faaw insha allah yàlla na yàlla saxal salaatu ak salaamu ci yonante bi ak ay mbokkam ak ci saxaabaam ak képp kuy jéem a roy ci ñoom di aw fa ñu awoon foofu la téere bi yem kaset bi dafa desee fees kon nag nu feccilee ko yenn njëriñ yi nga xam ne sëriñ bu mag bi wax na ko ci yenn mbindam bokk na ca xasida gu mu tënke allahu muhammad mu tàmbalee ila siwaaya bishaqaa'i dhahaba kullu laayinin laa ara man nahabaa bayit yooyu nee na ku ko mokkal kenn mënulaa réeral kenn mënulaa bewloo ba ba ngay dugg ajana am na beneen xasiida bu mu tënke xaama shahidna bi karam te mu tàmbalee xuudu bi rabbikum min allaayini fallaahu xayru xaafidin mu'ini xasida googu nee na yonante bi ci boppam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo ko digal moom sëriñ bi ne ko nga mokkal ko képp ku bëgg a texe adduna ak alaaxira it na ko mokkal am na it yeneen bayit yoo xam ne da koo tàmbalee ci wuduxu ixtilaa'il mustafa qaada lil xafwa kama qaada li bishran xawal am na was safwa bayit ya bariwuñu mu bind ca suuf ne bayit yi ku ko mokkal mucc ci merum yàlla ak mbugalam ci lu amul benn warante la mu waxan it ca mawaahibul quddus ne malaaka yi yenu aras juróom ñett lañu tudd seeni tur teg ca ne ku mokkal seen tur yi bala ngaa faatu jàkkaarloog sa béréb ba nga jëm ca àjjana yaari bay rekk la yomb naa mokkal moo di fa dat wayaa iilu wa dat fayaa iil wa satt fayaa iilu wa xatt mayaa iil wa kam kayaa iilu wa sam kayaa iil wa sas mayaa iilu wa zan jayaa iil way wu nekk dafa am yeenti tur way wu njëkk wi am na dat wayaa iil ak dat fayaa iil ak sott fayaa iil ak xàtt mayaa iil muy ñeent kam kayaa iil sam kayaa iil sas mayaa iil zan jayaa iil mu juróom-ñett sang boobu ñu wax xadir dañu bari wax ne waliyu la waaye du ab yonante nee nañu ko xam aw turam ak turu baayam ak aw dàkkintalam ak laqabam laq laqab moom la ñuy wax nun aw sant ñoom nag buñ ko waxee dañ cey jublu lu ñuy jëmale ci nit mu yëkkati dara jaam mbaa muy suufeel dara jaam waaye nag bokkul ak aw turam mel ne xadimur rasul nim mel ci sëñ bu mag bi nee nañu ku xam yentam yooyu da nga faatu ci gëm yàlla da nga tàbbi àjjana nga wax ne mooy balyaa balyaa muy aw turam turu baayam mooy malkaan aw dàkkintalam koy wax alkuniyatu moo di abul xabbaas laqabam nag mooy qadir qadir jooju nga ci miine mooy laqabam qasiidak ikfini ak qasiidak matalul jannati allati wa'idal muttaquun sëriñ bi ne ku leen mokkal téye nga sa paasu àjjana ba noppi xasiidag jaawartu waxoon nan ko nu dellu ko baamu nee na ku ko mokkal deesu la laaj ci bàmmeel xasiidag waqaani xafiisun ku ko mokkal mbaa nga takk ko mucc ci lépp lu aay ci àdduna ak alaaxira insha allah yetti bayiti allahu min kulli karimin akram ku ko jàng mu mel ne wàcc nga ab kaamil kon noo ngi taxaw noonu dan doon yeesalaat téere bii di masaalikul jinaan yàlla nag taw fi xale nu nu yoroon wesar wa nga xam ne moom la sëñ bi way ak saraaba bi ne yeesal téere bi daa fekk nu amee ko moo tax nag nu indi ci ay leeral yu bare bare bare ku amoon nag kaset yu njëkk ya mën na ko indi rek ñu awaleel ko ci bu yees bi kaset yi ñu yeesalaat moom day leer bu baax wuuteeg yu njëkk ya mën naa am léeg-léeg ngeen dégg ci rajo bi mel ne kaset yi leerul waaye ci rajo ba la waaye du ci kaset yi ku ciy déglu dara nag lu mu néew néew mu ñaanal ki ko doon jéem a leeral ci waxi wolof ak ci njàngale yoonu mag ña yàlla may ko ngën ji njëgal ak ngën ji yërmande may ko mu ëpple tawfiq ci lépp lu mu jaarale moom yàlla ci sëriñ bi taalif téere bii ci tawfiq yi àdduna ak alaxira boole ko ko mboolem bokki taalibe yi ak mboolem bokki jullit yépp ci baaxug sëriñ bi nga xam ne moo taalif téere bi muy sëriñ bu mag bi radiallahu taala anhu wa nafaxana bihi amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين